léegi nag ku ñu seeti mais mais mais copain <laughs> xaaral ma teg ko ci wet gi mais copain mais copain mais copain mais copain temps yi li ngay sañse ci télé yi mais copain temps yi mais yow ki topp ci yow couturière la war a couturière mais li sañse mais Elhadji yaay ngab ay sa kaay man dama ne eh man day waxuma sax waxu député Macky Sall nag fi ne na rayante maa moom waaye dama li ma toj naa ko waaye man maay actuellement maay toj Sénégal man man maay toj Sénégal dama ne Macky Sall buy seet ko dara nelaw dëgg man boobu laa man la man maa ko dara nelaw ndax man yàlla bu defee li nga xam ne moom laa bëgg dama ne bañ dem ba ci ba ma jël paie ba nekk président assemblée nationale waaye boobaa neex waaye da nga xam ne boobaa assemblée boobu day neex boobaa man Macky Sall mën a mën a am ma ne ko yaa ngi may xool mu ne ma jàkk ma ne ko jàkk ne ko Macky Sall xool ma mu xool ma ma ne ko yaa ngi may xool mu ne ma xàmme nga ma mu ne ma xàmme naa la xool moo xam bu ko neexee bañ ma xàmmee waaye de boobaa du mun def gouvernement te laaju ma <laughs> loolu rek ñun moo mën a jàppale ma nekk président assemblée nationale Macky Sall bu ngeen def dara ma ne ko déedéet doo ko fi defee <laughs> loolu rek lay mën a jàppale te dama ne waaye dama ne dama ne dama ne dama ne ana waa Wakaam dama ne ana jigéen ñi nekkoon Wakaam ñi nga xam ne Macky Sall deuxième tour dafa jaar na leen yéen dama ne boo faloo utal leen jëkkër ana ñu ñooñu dañoo wax nañ ci man association des femmes cherche mari jigéen ñi nga xam na dañ dañ bëgg jëkkër dama ne ñoom ñoo demoon jàppale Macky Sall ca wakaam waaye Macky Sall bu mu faloo da leen fàtte moom day bu dee woote ngan ma ngan rek na takk ñaareel na def ni man <laughs> ah <laughs> waaye na takk ñaareel loolu da mooy gëree gëree dëgg dama ne boo bëgg a jàppale jigéen rek takk ñaareel takk ñetteel teg ci wet gi waaye na naa leen naa leen jëkkër bu bu bu ma nekkee ma ne nga falu fàtte leen bu ko neexee nag jabaram xam naa jabaram mooy jéppee wala wala jabar yaa ngi naan kii de ko wax loolu loolu waaye dama ne Macky Sall bu lay génnee dëgg takkal ñaar dama ne war ñaar ndax yow fu mu ne yaay ñaari pare pare bi ci pare bi ci pare bi ci fii ci biir Ndakaaru Njaay xolu Ndakaaru ak pare bi nekk popi ngeen waaye dama ne pare popi bi xanaa yu fa nekk ko fa taal ah di fay courant di fay ndox tam ku fa nekk dama ne kër jigéen a ko yor waaye dama ne Macky bu fekkee ne vrai sénégalais la sénégalais 100 pour cent mu benn jabar dañ koy compter tukulóor ke da nga am ñaar am ñett waaye nag mara yemale ko si maram fay rek <laughs> loolu mooy wane ne ah, man de géree laa dama ne jigéen ñi nga xam ne da Sall la leen diggoon jëkkër ñëpp te ñëwul ñëw na ñëw dama ne <laughs> cale laay waxee damay bañ sama jabar yi seetaan yaakaar ma dina yokk keneen man ñaari ma rek doy na waaye <laughs> pour jàppale leen naa jox sama jabar naa jox sama ñoom ñaar ñëpp ndax aaw bi sama xarit la ñaareel bi sama gerte la su ma la ko waxee dama bëgg raq da ngeen bëgg raq naa ma ne ko jël kenn def ci seen wet suñu dawalee ba jawal ba mu neex ba ba xumboo ba tuqoo ba mu nekk président Sonacé mu dolli kenn mu ñeent ah, a du ko yàq noonu nag mën a jàppale jigéen ñi jigéen ñi tas nañu am na ñu jàng ba yee ay kër te mënu am ñoo xam ne dañ solu ba sol bi xeewi dañ sol pantalon yu rafet def ay lu mu dañ ko defee def seen weey def seen xef yi mel na ay poupée di dox ci mbedd bi te ku leen kenn du la wax sax ne soxna si toj nga toj nga koñ bi waaye loolu baaxul dama ne jigéen bu sagoo da nga koy sagal waaye jigéen romb la def yaram bu ñool ca kaw xees pecc dama ne sol sol grand bu romb tuuro parfum xeeñ romb ci koñ ba góor ñu continué wax ay waxu sa yaram ak ay liggéey dama ne kooku dee na jigéen boobu dee na waaye jigéen dëgg ba mu saan génn solo ba yekk xees ca kaw njool ca kaw yor sa laket dem marché boo daagoo daagowaat dama ne góor dëgg da lay dab na la soxna si xanaa Macky Sall nag moo la ko xañ da laa Diouf dama ne jigéen boo xam ne da nga am problème jëkkër ñëw parti bu mu demee assemblée nationale maay voté loi boo xam ne dama ne liggéey weer bu dee ñu xool sa salaire mu passé trois cent mille wala quatre cent mille dama ne par la mu neex mu naqar di nga takk kenn xaw ma sa mbokk lay doon xaw ma ne da koy forcé xaw ma mu ne la di nga takk ñaar loolu mun a am pour dimbali jigéen ñi ndax jigéen ñi dee nañu Sénégal bu ñu dee cent personnes dama ne quatre-vingts yëpp ay jigéen dama ne je suis pour le bi nga xam ne day dakk ñaar ba ñett ba ñeent ndax loolu mooy dimbali jigéen ñi jigéen ni ñoom ñooy parité waaye nañ leen jël mën naa ko wax mën na dalaa jóof yow Macky Sall dama ne ba doy gënee dëgg takkal ñaare boo ragalee ma may la bu dee am nga fit boo ñëwee may la kenn ma dem fay bu la neexee nga jibaru ba yaa xam xanaa nga jéppi góor dëgg ay ma ne man takk ñaar ñett ba ñeent <laughs> ah wuyu laa ilaha illallah eh madame Faye <laughs> mais madame Faye mais sa waay <laughs> kon Macky xanaa day ko day def day day def conseil des ministres lundi ca Popenguine jeudi ca Dakar Marème Awo ka ca topp ñëw ma ko wax bu am na alaaji dangaa bàyyi mag ak benn rek senegaal di ñaareel senegaal di aawo Maram Faye di ñaareel loolu rek doy na alaaji loi boobu dama amee dana neex man mi nga xam ne sama xel dafa nekk ci cay sama jabar wa déggee wa déggee ah, bi ngay takkee ñaareel waaye demal du ma ndax doxaankat bu mag nga sama jabar xam na ne da ko am rek laay def